boy ne mbokki Sénégal mbokki amateurs yi le retour de Ndiaye production stadium Iba Mar Diop loolu le 18 mars la dama ne olof Ndiaye dafa ne bu jinne soxlaa Dakar ku yéeg daanu kon bu Ndiaye soxlaa Iba Mar ñëpp dañuy puus ca gannaaw bàyyi ko mu doxal ndax bu bi amoon làmmiñ di wax dana leen ne li ma Ndiaye di teg moom rekk ku mën muy le roi du stadium ñëpp nangul ko ko mu ne xaar leen ma fa le 18 mars ma ne ko loo fa yóbbu mu ne ma diggante feu rouge ak bulldozer ma ne ah Ndiaye bu yegg see amateurs yi xam ne waa ji ñëw na bu Iba Mar tijjee ñu xam ne borom yegg si na waaye bu feu rouge jàkkaarloog bulldozer ñu xam ne xaritu amateur yi amal li ni mel mooy ki nga xam ne lu mu tëgg njar ndéem la mu ne ma combat préliminaire yi nag boo ci jël mu dàq grand combat ma ne ko limal mu ne ma ngéwél gi ak Mor Kankang 2 mooy premier combat ba deuxième combat Ramdan Junior ak 55 troisième doomu Minam ak Bombardier 2 quatrième combat Bébé ak Boy Paul cinquième combat Modou Yacine ak Xarañ Sarr sixième combat ak Barodi septième combat Carrière ak Zilo huitième combat bay dox ci diggante Jinne bu ndaw ak Julde 2 dox ci diggante Sall Ngaari bu jëf soog a nekk ak Bada John muy lamb ji amateur yépp di xaar gannaaw ba ñu nammee Ibamaar mu ne sponsor ya maa ngi ànd ak Jojo Meuble ànd ak Crax ànd ak Njaay Global Business entrée mu ne bu dee tribune supporter tribune amateur francs bu dee loge VIP 10 000 francs kon mbokki amateur yi bés baa Njaay production dellu na ci Ibamaar mars la woote ci diggante Feu Rouge ak Bulldozer kon mbokk yi bu nu ko kenn nit communication entre grand contre petit. communication grand contre petit comme. parce que dañuy gis ne léegi kon booyee bu ñu bëree grand yi. xam nga wax ji yaa ma ne la maane la lool nan nga. waaw mais na rafet rek na rafet nit ak loo mënti séq ak moom ak loo mënti séq ak moom na lépp rafet rek waaw. bu jógee foofu la dëgg yàlla fa mu nekk. man foo nekk. maa ngi nii sama kër jàkkaarloo yow. non bu ma kooku kooku man du ma wax ay waxam. ah laa ciy wax man ma wax waxam. parce que pare que ni ñu ngi ko doon. man xaw ma si dara de. kon tàttewuñ la ko boo xaw ma ci dara. tax nga ne parce que dama ci xamul dara. ok mais ay promoteur la dëgër contacté nañ loolu de xaw si dara même bu amoon duma ko wax. parce que dara leeragu fi. dara leeragu fi. waaw mais avance ñi dégg yëpp. yéen nga dégg. Lac de Guiers Siteu Lac yàlla dafa def na taxawagul rek mais bu taxawee di nga ko dégg incha allah. ok bu taxawee. di nga ko dégg incha allah. combat ak Siteu. tarkindaa bi. non taxawagul des na. ah desewul ci la de Guiers daal. kon wax yëpp desewul. Hmm. desewul ci man de hmm. waaw. ah lu may xaar non ñoom lu ñuy xaar. ñoom kat gaa yaa ah ñenn ñoo ñëw. affaire coffre ah. ah, ku bëgg combat kii da ngay génne coffre-fort. coffre-fort nga waxee yow. coffre-fort nga bëgg a wax wala coffre-fort luy coffre xaalis bi. Ah, kan lu mu laaj moo bari. ñun ñëpp lu ñu laaj dañ ko mérité lépp lu ñu mënti laaj dañ ko mérité. làmb dee ko dégg nii rek dafa metti waaw mbër bu ci laaj deux cent million mérité na ko parce que la muy daj ba laaj loolu moom moo xam du Lac de Guiers kese de mbër yëpp bu ñu sañoon bu ñu sañoon mbër yëpp ku nekk fayeeku lu baax yóbbu ci sa njaboot waaw parce que lépp lu ñuy daj rek muy mbër bu ndaw bi ba ci mbër bu mag lépp lu mu laaj rek yàlla nañ ko koo fay parce que dañ koy dañ koy mérité lamb dafa metti Euh, ñu bari dañ naan la de dafa war a wàññi cachet ma parce que pour mu am combat day metti parfois ñi naan Lac de Guiers saful xorom saful suukar hmm. pour mu wàññi combat ma wàññi sama cachet léegi lan lañ bëgg ma def ko dërëm waaw ah. man daal maa ngi sama loxo daal di waaw ñoom ñëpp tant qu'ils ñoom ñëpp tout hmm. waaw ñoom ñëpp tout hmm. bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ñëpp mais ñoom ñëpp xanaa du toj dina toj fa fanaan de. ma xanaa combat du toj maanaam du jeex. Ah. de. mais sa boo nekk muy sa combat te bàyyi li ma waxoo ko kooku du débat bi waaye. du débat bi. parce que du dul débat bi. Ah. du débat bi loo gisee taxawaay CNG ci làmb gis nga fa ni gaa yi koy ngi seen ŋàññaa moo yàq làmb CNG lii CNG lii moo lay gisee seen. g yàqul làmb nañ bàyyi dox CNG yàq làmb supporter ñoo bëgg a yàq làmb yaa ngi dégg ñoom ñoo war a dimbali seen mbër ak lu mënti am dañoo war a ànd ak dal CNG rôle am lan la moom mooy fexe bañ làmb ñi yàqu ñoom bu defee seen rôle ba pare ñu nekk ci kaw nañu wuy si li CNG di def. parce que tey bu supporters yi nekkee ci kaw CNG réglé lu muy réglé yëpp joxe réglement yëpp yow nga nekk ci kaw coow li na kur nga jël siège damm CNG lu mu ci mën kan moo yàq CNG CNG yàqul dañ ñu war di communiquer ak suñuy waxtaan ak ñoom di wax ne lii bu ñu ko defee lu ñu yàqal kenn kenn kenn kenn kenn ku dul mbër mi du ñu yàqal kenn kenn kenn kenn kenn ku dul mbër mi. donc supporters yi ñoom ñoo war a ànd ak seen xel xam na lii ñu ni président defal muy bisu bii di arène nationale bi ñun dañ ko war a sàmm xoolal stade jam ñaajo bi jour yi match jeex est-ce que da gis ñu dem ay seize sànni mais lan moo tax violence bi am ci làmb ci kese lan moo tax kon donc ñun suñu bopp ñun ñëw war a nekk nit xam ni lii ñu jox nii pour ñun kese la pour ñu ciy daan suñu doole supporters yi ñëw bég ci tamit loolu kese la ñoom ñëpp nañu xam ne lii nii yaa ngi dégg mu góor la ku ci am ndam rek ñoo xam ne loolu la yàlla dogal. waaw face à face nga xam te moom la suspendre mais loolu nan nga ko gisee. yan face à face yu ñuy suspendre. dañ ko suspendre mais non buñ ko suspendre pour l'instant kay buñ ko suspendre parce que buñ ko suspendre ban sens la nan la gars yi di mën a xamee ne làmb am na. buñ ko defee danañ doon cuune te c'est pas normal face mooy tax nit ñi xam na ne làmb bi am na làmb bii dina neex wala du neex tey bu fekkee ne yow da nga ne làmb bii dina neex làmb bii du neex tey amul face à amul dara nit ñi nan lañ ciy commentaire kenn sponsor na la ñu mën a ñëwee joxe parce que sponsor bu demee bay teg dara fa daf fay gis dara dina xam nga xam lii dina neex wala déet tey bu face à dara amul léegi nag après nu ñuy mën a xamee fu mbër mi état fu mu toll ak lan la ñuy def ak ñuy def naka su dul noonu leen rek la promoteur bi bu ko war a def face à sécurité bi doy nombre yi nga xam ne moom moo war a dugg ci biir palaato bi ñu limité ko jël tàkk loolu kese la. noo gisee Modou Lo Modou Lo mooy ak Boy Niang. ci ni mu déroulé fu mu ne nii. Hmm. làmb ju neex la de. grand contre petit la. grand contre noonu la grand contre grand contre petit la de. Hmm, Modou ah mu ni. comme ay génération. Eh, tontoo Modou nag bàyyi li ngay def <laughs> ah yow tamit. Eh. benn la rek du moom moo njëkk a bëree Boy Niang. noonu lañ ko mën a waxee ko mais magante waaw même bu ñu magante wu moom moo njëkk a bëre booy ñaa wala ba muy bëre booy ñaa bëri na. waaw kon nañu wax grand contre petit même bu fekkee ne ñoo maasan loolu lañ mën a wax grand contre petit. parce que moo ko ci jiitu. Mm-hmm. waaw i combat njar ndem la combat bu neex la sax mm-hmm. waaw. bu neex ah mosu ñoo laale ñoom ñaar mosu ñoo laale. waxoon naa ko waxaat ko ku ci vigilanceul pëtëx vigilanceul ci ñoom ñaar pëtëx ñàkk sa combat parce que ñoom ñaar ñëpp damaa naa rek ñoom ku nekk xam naa li ngay saf lan la. bokk nañ xeetu. Hmm, non bokkuñu de. bokkuñu xeetu bëre de waaw. kan moo ci gën a gaaw bëri Modou loo day bëri de Modou Lo day bëri Boy ñaar day bëri day xeex waaw te Boy Niang bés boo nooy bëreet am na noo naan bëreet rek doo ci am neex en tout cas. combat bu neex la waaw. moom am na combat. wéragul ba léegi. oh massa. yal na ko yàlla wéral ak jàmm. ba nekkaat ci activité xale la. dafa war a bëri. yaa ngi dégg. yal na ko yàlla taxaw ba mu wér. ñun yéenewuñu kenn mu am blessure su ñu ñëpp ay góor lañ ay jullit lañ bu sa bu sa bu sa rakk wala sa sa mbokku mbër gaañoo ñaana ko yàlla fëgg ko mu wér ci jàmm ba mu nekkaat ci li mu war a nekk yàlla ko yàlla jàppale ba mu wér ak jàmm ba mu bëree kombaam amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ak lutte sénégalaise ñu dalaloon ki xam te moom Lac de Guiers numéro 2 ñu waxtaan ci leen moom mooy actualité xam nga kon niñ koy waxee rek parce que tamit ñu ko ndax euh, li ñu naan actualité oblige nekkatul loo xamante ni tey dañuy ñëw rek nag di ko ñaanal nag bu baax a baax di ko remercier ci disponibilité bi temps amul te xam naa ci dara wax dëgg yàlla mu ko fekk mu mu nelaw mu yeewu waa Thiès dama ko neexoon tamit mu ne ki mais dama ko woo rek taxaw ci buntu kër gi ne ko maa sa kër di ko ñaanal yàlla bu baax a baax di ko remercier waaye bu baax a baax ndax chaque jour dafay disponible te à chaque fois dañuy ñëw loolu noonu waaw di ko ñaanal ko bàyyi ñëw ci barke yonent waaw moom moom mooy loolu. waaw mais noonu la ma fi yow yow da bokk ci man vraiment bokk ci man sama waaye la nag <laughs> bi baax damaa wax ah. ci sa ci sa ci sa ci sa kii bi nu sax ci sa portable bi snap bi nangoo dugal kàddu gi ma wax ngir fii laay waxee Gris Eva Diatta ah, ak kii du tudd sax sama chéri bi Abiba maa ngi koy ziar tey ñoom laa may émission bi li ma fi wax yëpp. Eva Diatta ma France waaw. moom laa ko sama doom day sama xarit Eva cey Eva Eva maa la bëgg waay nit ku baax ndeysaan. ak yal na la yàlla defal jàmm. sa chéri bi nag moom. sama bi. waaw sa chéri bu bees bi ah. mais non Gris 2. non Gris 2 bàyyi ko Gris da war a may chance. Gris 2 dama ko bëgg man turam bi man moo ma neex ba mun mun ma ko may saas Guider kii sama doom la. kii sama doom la lu mu wax maa ko wax ba ma moytuwul nag dinaa la koj Lac Rose laa lay koj dinaa la dugal ay coups ba nga xam ne lépp dëgg la. Guider non Guider il faut ma lekk avance sama kaw. xool naa ba xool il faut ma lekk avance. kon pare pare naa ci yow. pare nga pour bëre ak moom. fii avance laay wër ci dëkk bi. bu promoteur ñëwee. non ma jël avance eh, damay jël sa avance. Ah. lekk sa avance bëre ak yow <laughs> toll ni comme yow. dina yokk la. nit ko baax nga vraiment ah. euh, nit ko jox mag cëram la. Mm-hmm. waaw ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla yokk. Mm-hmm. yàlla jàppale ci sa carrière. ci barke Seydina Mohamed ah di sant ñëpp di sant waa géej waay bàyyiwuñu kenn ñëpp sama doom day Aline Sey numéro 2 ah kooku maa moom ñoom bokk feebar maa moom man moom a ji xalta bu leen di ah. <laughs> a de non fu mu ne nii kay man feebar bi ma dal mooy dal Aline Sey 2 ma ma man maa am feebar bi ñun <laughs> ñaar non ni ñu bëggante moo tax fu ma amul day siisu waaw ba pare yow soo amee combat moom day combat moom combat oh. parce que dañoo bëggante ah, loolu lay loolu la yàlla def Sey 2 ndeysaan yal na la yàlla bàyyi ak sa waajur maa ngi ñëw ci moom yal na la yàlla bàyyi ak sa waajuru doom day ah yàlla yàlla defal la jàmm fépp fu dugg yàlla na yàlla defal jàmm Alioune Seye 2 wallaahi yal na la yàlla may combat ah, yaa ngi dégg nga am ci ndam lu ci barki Seydina Mohamed am ah. bi ñu fa am combat yëpp écurie ah. bi mm-hmm. ñu fa am combat ndaw sama doom nday yal na ndaw yaa ngi dégg càddu booy yi bi daal waaw bari nañ yàlla na yàlla defal jàmm mm-hmm. yàlla yokkal di jël nuyoo di ko teg suñu loxo coach ah ron maa ngi lay béggee baax a baax a baax dina sama xol a ngi ci yow nag barke yonent bi yàlla la yàlla defal jàmm ci barke kan bi baax max ñu naan dañ ma yóbbu vaar <laughs> jubóo de waaye de jubam bi man fekk dama cee sonn nag ay saagaa gépp la mu ngi ñëwaat encore commencé waat nga encore <laughs> ku leen jubóole <laughs> ku lay jubale ak guy gi da <laughs> ngeen a waroon xuloo ba si kanam yaa guy gi ah. non dafa sonal. da ngeen a waroon a xuloo ba si kanam. non non dafa ma sonal kii dafa ma sonal trop ah. kenn ku nekk 200000 lañ leen jox. pa mama pa mama pa mama pa mama. 200000 <laughs> eh, de kenn nekk 200000 euh. euh. bëgg nit ku bëgg géej waay jëm kanam. Mm-hmm. nit ku bëgg géej géejuwaay am jàmm mm-hmm. mooy jëmm jooju noonu yaa ngi dégg Pape Mama yal na la yàlla fay sa xol wallaay da daf xoola combat mm-hmm. daf cee dem ba jeex tàkk dama ko yërëm sax mm-hmm. Pape Mama Pape Mama duwaañee yal na la yàlla fay ndeysaan di ñaanal suñu papa ju baax bu nekk fii biir géejuwaay waruñu ko di fàtte nag moom la ñu waroon njëkk a ubbee muy Père Diaw Père Diaw cofeel moo ko bàyyi biir géejuwaay ba léegi mais mbër yëpp dañ ko war di bàyyi xel bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax parce que dafay sonn ci mbëru géej waay ñu ko dara nag bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax defaluñu ko dara te day sonn suñu mbir suñu waalo waalo boobu noonu suñu pàkk ju baax leer jaw yal la yàlla fay yàlla na yàlla guddal sa fan ci taxaw yi nga taxaw mbëru géej waay yëpp yal na la yàlla fay sa xol ci barki Seydina Mohamed nga baal ñu àq nag sonoon nañ la trop merloo nañ la guddi merloo nañ la bëccëg mais ñu ngi lay lu baax a baax nga baal ñu àq man maa lay ñaan nga baal ñu àq ñun ñëpp yal la yàlla fay bér ci kontaan naa sant ci yow maa fii waaw sama soxna nag mention spéciale à elle maman mon cœur à moi noo ko tuddee mon gisoo gu tuddee jabaram ci baby. <laughs> Balla Gaye rek xaar maa ngi ñëw kenn ku nekk ak sama sa. guy gi tuddee jabar ji fo foo toll mu naa la baby. <laughs> baby guy gi mu dafa ah. Ah. fi man daf ay mbiram tudd doy moom tuddee jabar ji moom. Balla hmm. tàngal mant. tàngal bant. tàngal waaw tàngal bant. <laughs> Balla fu mu toog danaan buri tàngal bant tàngal bant. léegi yow doo tuddee sa bos. man moo kër moo kër iso bi. yow doo victoire daal xam nga xol bi nii la. Ah, léegi saa kees nu mu tuddee Khadija nu tuddee woo. nu mu tuddee jabar ji saa kees. Ah. ak ah. bu doon. ma chouchou ma chouchou. non sàkkee toj na fi moo chouchou. Euh. tuddee bosam. gelam bi euh. <laughs> moo spaghetti. liiru liiru lu ah, mu tuddee jabar monument monument waaw bu la koy tuddee monument kay jabar la moom monument non moom la jabar ji la la ko noonu la ko war a tuddee liiru jaaj non kooku monument la jawara dal waaw renaissance la koy tuddee grand livre grand livre da wax moom rek ñu ne ko ah copain Khadim ah. nooy wooyee sa jabar mu ne monument de la renaissance <laughs> liiru jaañ toj nga fi <laughs> bu leen ma tiktok de bu leen ma tiktok liiru jaañ ah. monument de la renaissance lay wooyee jabaram ah. waaw sant la gërëm la maa fii yàlla na la yàlla defal jàmm ah. sama doom nday Thier ah kan waaw waaw waaw maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal ah. ngeen ñaanal sama doom ji da am faru rab mooy Fatma mi sama doom mi affaire bi dafa ma jaaxal faru rab bu bon la yor képp ku may ñaan na ko ñaanal. non sérieux nag tooñu ma de. képp ku ci mën a ñaan rek na ñaanal sama doom ji. ah. wuy ba léegi nag oh, maa ngi leen di ñaan yéen kilifa képp koo xam ne yaa ngi ñaan yaa ngi may ñaanal ñaanal leen fa sama doom ji yàlla may ko boroom kër gu baax ah, ndax nit ku baax la mm, nit ku bëgg papam nit ku bëgg famille waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm moom borom kër gu baax dama ñëw ñaan si damaa gëj dem ah, xew xew xew xew booy bopp yaa booy dara nekku ci nag ñaan bopp yaa sama mag la baal ko tayu ko. mais yéen da ngeen a dof wala lan mooy seen problème. waaw waaw kii doo ko am damay xoy. mais ñii ñii yéen yéen xanaa ngeen a dof yéen. waaw baal ñu. waaw ah, sëñ bi waaye doo ñu maa ngi jéem mais xanaa gisoo lu ñu def bu ñu toj nii pour lan. dinañ ko lijjën sëñ bi maa ngi tuub. bàyyi sama yeneen bàyyi bàyyi sama yeneen léegi. paa bi fa fay la sa pare-brise nga mais bu baax fenn la am. dañuy dem Njaay global business. monter la pare bu baax man dinaa ko fay moom nit ku baax la bu ñu demee expliqué ko dina ci jàpp. nga jéggale xaalis bu ko boobu fekk xaalis. mais ñii kon dañoo dof. une société purement sénégalaise. Ndiaye Global Business. xarañ loolu ci seen métier.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 76 98 76 532 64 17 Global Business mbégte kese la